daje bi tey bi nga xam ne inspection du travail bu Thiès moo ñu fi invité woon mooy euh, déplacer inspection du travail euh, pour rencontrer pour daje ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi wala seen njaatige ñi nekk ci kuréelu liggéeykaay yi pour que képp ku ci am euh, soxla ñu mën la ko fajal ci saa si moo xam dafa am looy laajte ñu tontu la ci wala këyit boo war a euh, déposer wala nga récupérer ko wala nga xam euh, contrat boo war a déposer wala ngay laajte lan mooy àq ak yelleefu liggéeykat wala àq ak yelleefu ki koy liggéeyloo wala ngay laajte lu jëm ci wàllu euh, sécurité et santé au travail lépp lu jëm ci kaaraange ak wér-gu-yaram ci biir liggéeyukaay bi wala ngay laajte aussi lu jëm ci wàllu protection sociale parce que même waa Kees ak waa IPRES ñu ngi fi pour tontu ci wàllu mbirum euh, nu ñuy calculer mbirum retraite pension yeeg yooyu euh, cotisation yi naka lañ koy déposé ban montant la euh, lan la ñu war a def pour xeex fexe ba ay accident du travail du du bëri ci entreprise wala mu bañ a am et cetera donc vraiment pàcc yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee fii dafa bëri am solo moo tax ñu ngi ñaan. vraiment waa ñu ñëw euh, rencontrer suñu équipe yi fi nekk euh, dinañ leen mën a tontu ci lépp li nga xam ne mooy seen euh, solo bu ñu amee aussi ay jàngoro wala ay jafe-jafe di leen di leen wax yan yoon la maye lan yan yoon la le le code du travail maye. pour ñu mun a fexe ba nga xam ne dinañ mun a euh, xeex loolu nga xam ne mooy jàng loolu problème administration la il faut que administration mu def euh, mutation il faut que administration ubbeeku bu nit ñi nit ñi certes ñu ngi fay ñëw di ngeen gis ne liy ñëw inspection du travail bëri na lool ci wàllu contrat yi ñuy recevoir ci wàllu conflit yi ñuy signaler ci wàllu différents euh, collectifs ak individuels yi ñuy lijjanti mais loolu du doy inspection du travail warul rek toog di xaar dafa war a fekki population yi fekki travailleurs yi dugg ci entreprise yi fekki employeurs yi expliquer lan mooy mission am lan mooy ay prérogative am ax jox leen aussi ay conseils pour que ñu fexe nan lañ mën a prévenir yenn jàngoro yi wala yenn conflits yi ba nga xam ne yooyu du ñu mën a survenir ci biir entreprise bi parce que bu entreprise bi amee problème mooy koom-koom bi am na problème bu koom-koom bi amee problème mooy liggéey dina jafe mu sax ci réew mi wala sax mu am donc il faut que ñetti parti yëpp di taxaw di waxtaan journée yi mel nii baax na waaye bu journée yi passé inspection du travail dafa war a continuer jox nañ leen digal pour que ñu ubbeeku di déglu nit ñi di leen recevoir di taxaw ci li nga xam ne mooy seen ay jafe-jafe. Ah waaw yooyu yëpp am na fii dinañ leen jox euh, am na rapport euh, annuel des statistiques du travail d'ailleurs bokk na ci solob ndaje bi dina leen jox euh, chiffre par exemple contrat yi nga xam ne Thiès. Euh, recevoir na ko ren mu ngi ci rapport annuel des statistiques du travail dina leen wax ñaata conflit la Thiès euh, lijjanti ci année bi ay conflit individuel de travail wala ay conflit collectif dina la wax ci biir conflit ñaata PV de conciliation moo fi am ax ñaata PV de non conciliation yan la inspection bi lijjanti ba nga xam ne euh, sotti na ak yan lañ yóbbu fi nga xam ne mooy tribunal dinañ leen jox aussi ay information ci Euh, ñaata élection de délégué du personnel la ñu euh, organiser à Thiès ci biir élection bi ñaata délégué lañ fal ci délégué yooyu ñaata jigéen moo ci am et cetera et cetera. dinañ leen wax aussi ci statistiques yi euh, ci wàllu Thiès rek ñaata comité d'hygiène et de sécurité au travail moom la ñu installé par exemple en deux mille vingt et cetera. loolu ñu ngi ko doon wax mais changement yu bëri am na ba loolu daanaka liñ koy gis léegi bëriwul parce que wax dëgg yàlla nguur gi. am na matukaay yu mu jël pour que inspection du travail léegi wax dëgg yàlla muy ci wàllu nekkin ci wàllu payoor ak yëpp wax dëgg yàlla am na ay amélioration donc euh, ñàkk a dem nag bon kenn mënu ko prévoir parce que loo am am euh, euh, naataange mën nga gis leen nga dem mais wax dëgg yàlla lañ doon wax moom conditions yi moom changé na bu baax. journée porte ouverte yi nga xamee ni inspection du travail organisé na ko. ndax dafay gën a euh, boole dafay day tax liggéeykat yi gën a ñeme inspection du travail ndax bu fekkente ni yaa ngi ñëw ci place boo war a régler say jafe-jafe nga ñëw euh, faale gi ñu la war a faale des na toppatoo bi na war a toppatoo des euh, bu boobaa dafay doy waar mais bu fekkente ni dem nañu ba nga xamee ne l' administration particulièrement les inspections du travail xam nañu dañu war a ubbeeku dañu war a xëcc liggéeykat yi ñu ñëw xëcc aussi employeurs yi ñu mën naa wax ni comme ni ma ko waxee ci ci français que ni inspection du travail këru liggéeykat yi la euh, plus que këru ñi nga xamee ni ñoom ñooy euh, employeurs yi parce que foofa liggéeykat yi ñooy faral di am coono am jafe-jafe am naqar ci seen i place liggéeyukaay dem tawat ko foofu donc yooyu moom mooy li ci nekk ba tax na liggéeykat bi ki koy liggéeyloo ak l'administration bi leen di àtte bu fekkente ni daje nañu bokk waxtaan kenn ku nekk wax lan mooy sa mbir bu boobaal lu bëri dina dina gën a dina gën a baax ndax liggéeykat bi parce que inspection du travail dañuy faral di yem rek ne inspection du travail mais caisse sécurité sociale ci la bokk IPRES ci la bokk te liggéeykat bi mooy war a cotiser cotisation IPRES pour que bu àll traité au moins bu am lu ko xam loo xam dina ko mën a yor su fekkente ni cotisation agul bu retraité du am dara musiba am bu fekkente ni feebar na aussi il faudrait que ñu jël ko en charge avec les IPM su ko amul coono dafay dikk na am aussi euh, caisse sécurité sociale su accident travail amee wala sa soxna nekk en état ñu war leen a jël en charge euh, employeur ba euh, deful la ca war boobaa aussi problème am donc pour diir que ni problème yëpp dañuy dajaloo ci kaw liggéeykat bi liggéeykat bi kon moom mooy jéem a seet nan lay def pour saafara situation moo tax tey bu ñu nee inspection du travail ubbeeku na liggéeykat bi dina gaaw a daw xooli ji ana lan la ci mën a am ana lan la nga xamee ni soxlul mu fiy sonal boppam wuti ko feneen tribunal a ngi fi ba cour suprême a ngi fi liggéeykat yi ñoo ngi cee dox guddi ak bëccëg donc dina wàññi en tout cas coono wala boog wàññi tartaru coono mi nga xam ne moom liggéeykat bi di am. ñu euh, fàttali rek ne projet boobu mu ngi bokk ci li ñuy wax Compact with Africa. mu nekk benn euh, initiative boo xamante ni république fédérale d'Allemagne daf ko am ak euh, pays Afrique yu bari dont Sénégal si la bokk euh, projet bi li ko tax a jóg mooy ñu engagé ay réformes yu bari ñu koy waxee partenariat pour les réformes si biir réforme yooyu am na si domaine yu bari am na si domaine u formation professionnelle am na ci domaine foncier petite et moyenne entreprise mais surtout am na si domaine u yeesal liggéeyukaay yi ak yeesal jumtukaay yi nga xamante ni inspecteur ak contrôleur moom la ñuy liggéey pour ñu fexe ba euh, arriver si li ñuy wax travail décent si fànn boobu donc euh, projet bi mu ngi démarré depuis euh, mai deux mille vingt et un bi passé donc am na am na am na domaine yu bëri yoo xam ne identifié nañ ko pour rappeler déjà code du travail bi nga xamante ni ñu ngi nekk di ko di ko yeesal am na également li tax ñu teew fi tey mooy fexe ba xeetu ak façon yi nga xamante ni inspection yi moom la ñu liggéeyee ñu gën ko yeesal mais surtout ñu ubbeeku euh, donc euh, dem si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jëflanteel euh, loolu moo waral tey rencontre bi nga xamante ne moom la ñu am ñu koy waxee journée porte ouverte de l' de de Thiès daaw ñu am ñu defoon lu mel nii dakaar mais dans un contexte boo xamante ni Covid moo taxoon donc yaakaar naa ne ren def nañ jéego yu bari mais li ko tax jóg rek mooy ñu fexe ba am dialogue direct. donc inspection ubbi ay buntam ba ñi nga xamante ne ñoo fay ñëw euh, ñu xam dëggantaan inspection lan moo ko tax a jóg lan mooy mission donc ñu déplace inspection bi indi ko fii tey euh, donc yaakaar naa ne initiative bu baax la parce que inspection aussi dafa war a euh, def ay jéego si wàllu li ñuy wax communication nekkoon na loo xamante ni lu sooxe la mais communication bi am na solo donc yaakaar naa ne action yu mel nii bu ñu ko defee tey dina tax nit ñi gën a xam inspection lan mooy njëriñam lan mooy rôle mais surtout ñu xam ne inspection wàllu social lay dox mais surtout am na rôle am na contribution bu muy def si dimension économique am ci plan Sénégal émergent waaw projet bi euh, durée bu njëkk bi c'était sur trois ans mais mu amaat extension donc euh, période de six juróomi at donc normalement c'est de deux mille euh, ça fait juste un an mille vingt et un jusqu'à mille vingt cinq